yéen loo di def fii ngeen jàkkaarloog sama buntu néeg bi toog nee na xujju rek sama rajo bii ngeen teg seen bët yi xanaa ngeen ko bëgg a lekk wala. déggal lu muy wax waa kii du sama yaay booy <laughs> xam nga sa rajo bii nag doyewoon ko dara waaw. yow dimbali ma bàyyil di ma wax yaay man fan laa la jure yow locataire nga si kër gi rek man maa moom kër gi dama laa luye gaawal nga ñëw fay ma sama weer dangaa foogoon damaa naax man naaxuma de. ti pe tey dalooti tey nan na la dangaa foog kii daa naax kii naaxal de. <laughs> eh ay mag bu si yoonu ko ne ah? waaw yow man nag yaay laa lay wax moom yow yaay yaay laa lay wax parce que sama morom yaay moom sa yaay la waaw démb ay baru xëdd yooyu dégg nga mag sama jabar ji duñ jàppante fii mu jël ay bagaasam dem waaw bàyyi maa kii si kër gi waaw tamaa damay gont ji nii léegi nag dama ne ko bu ñëw fii euh, ndogoog yow euh, fanaan fi waaw man ma gont jee ma ñëwee jësi ko waaw te sànq dafa mel ni gis naa semaine daan bi togg waa xaaral ma toggaale nii sa taqalale sama loxo parce que tey togguñu waaw dama am euh, gont ji bu dee sama ginaar yi nga gis xale bi doon ko togg moom nga teg bët sa loxo du si taq kii moom sama sët la man na fi réer ma lalal ko mu tëdd xale la te moomin la xamul dara waaye yow moom doo lekk de te nga bàyyi naan ma yaa booy di ma màgget loo yàgg sa leel bi mel na foofu oto yi di jaar nu mu tuddee di sax. maam la la autoroute à péage la autoroute à péage. yow Mor man sa morom laa ba nga naan ma autoroute à péage mënoo réglé te nga nekk nit waaw wuyu ma léegi nag moom mënuma gontu ci parce que man vingt heures laa war a gontu waaw bàyyi ma toog fii heure ndogu bu jotee xanaa dute nan naa xanaa loolu mën naa ko. man la fii dara doo ko fi lekk yow yaa war a am jom démb si guddi dégg naa la ak sa jabar yow boo wee rek lekk la xëdd rek nga bëgg fi nekk di sonal nit ñi di kërti kërti naa ko sax mu ñëw mu aar sama yet bi mu dóor la ko sa leel bi ay waay maam maam nga da ma waroon yee loolu yëguma ko ma jël téléphone bi sirab loolu <laughs> na xëdd am na ñoo xam ne nu nga naan daa bëgg lekk doxal àdduna sa kanam man dama xol ak yow sax yow moom laay xol kon yow démb nag man doon sot waaw parce que dompat wala xeelu yëpp si xeetu sot la bokk waaw yow astu yow yaa ne boo la yilif ñu ñëpp parce que kër gi sa kër la waaw ñun say dëkkandoo lañ waaw yow yaa ko war a woo nga yedd ko wax ko dëgg waaw parce que xëdd dafa war a jug defaral ma ma xëdd mais teyal jóg nii du jóg waaw ni naa jug tàngalal sama bopp kii bi man naa jug tàngalal sama bopp te am am soxna. dama di dimbalinu sa biir ngay def defoo si biiram moom ñaari xale la yor liir bi ak kii toog. damay dégg sax guddi gi xale bi di jooy di kër ci kër kërti yow jog tàngal xëdd rek mënoo ko te yow yaay xët li ngay bëgg lekk yëpp sa bët yu ngande yi doo xuloo lenn la dul lekk ci nga jóg sama basan gi beneen man damay réer damay tëdd ginaar yi moom di nga ko uppal di yow jugal raxasu ni dunu préparé réer tey maam yaa dégg kakari ka nga tàgg tey man mooy loolu damay yàkkamti di ñëw fii di ndog ak yow waaw parce que kakari ka ngay tàgg ay mu xam sax muy bëgg rey